18 tawat gi nu dal war-war yi wër nu fu ne diis nan ko bam ba mi xëy baddil sëriñ mbegere banque tawat gi nu dal war-war yi wër nu fu diis nan ko bam ba mi xëy baddil sëriñ mbegere xiinal tawal dajalal ruujal jigal saxalal déqil tegóob jirijal nu jombu nga segere dépense dugub njëgu ceeb addiya ak dimbale moo tënk xel yi fegal ni dëkk bi dëgëre raasaatu nan fu ne yëf fuñ fëgg fa fani kek tabbil teral nu ci saga suñ 18 Safar sagare di ak rëtëg jaxasoog bekkoor tawad yabula ki tax sa doom yi di jooy kaay wan ko say degere yaa bari ci yit tiju far yaa mën ci soxo la ku kootin mu mujj ci ba am mayum jëgër jëgëre yaqoolu wartinu naxa suñ dool mi doy nga nu raas yaa jot ca kursi yu jot aras manuy sigare ajjil nu gam mi ngërëm duy sàq yeeg jiba yi naataa ngi dil si fi ñun barkeb sëriñ mbegere naataa ngi dil si fi ñun barkeb sëriñ mbegere seen bi jóg ngir liggéeyal Cheikh